war ngeen a jàng aaya yi ba mën leen a tari ñoom nag ñuy wéy ci njàngaleem ndaw yi ak cig bokk ci damm mburu ak ñaan ci yàlla jëf ya saar ñaar aaya ñeent fukk ñaar beneen yoon dinañu waxtaan ci ni Pierre faje nit ku lafañ